سألت الله رب العرش يبقيني يزيد العمر أعمارا ويحييني لأرفع راية التوحيد والدين أجاهد في سبيل الله يرضيني من الدنيا رضا الرحمن يهديني وأسعى ثابت الأقدام بيقيني فلا دنيا الورى يوما ستغريني بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الأخيار وصحابته الأبرار وأزواجه الأطهار wattaabiciina lahum wa man tabicahum bi ixsaanin ila yowmi ddiin amma baad asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ñi ngi sant borom bi subhaanahu wa taala di ko delloo wàccuwaay bi mu yelloo ñuy julli di sëlmal ci sangu-sang yi ak waa këram muy sunu yenant muhammad di ñaan borom bi subhaanahu wa taala yàlla bu mu deñ di dotti famoom ak i njabootam ci biir loolu mbokk yi ñuy yëkkati kàddunu yoo muy jàmmi yàlla ak xéewalam yërmandeem ak barkeem yàlla bu mu deñ di ko dotti ci mboole mi mindeefam mbokk yi ñu dellu siwaat ak yéen ci jotaay bii ñuy amal li ko jiitu ñuy nuyu di ziyaar sunu xabiba yi nga xam ne ñoo ñuy gunge ci jotaay bi muy ñu sori ak ñu teew ak ñun ñi ngi ñaan borom bi subhaanahu wa mu defal leen tawfiq te nangul leen alhamdulillah ñu dellu si wàcc sunu jotaay mbokk yi ku ñu doon gunge day fekk ñu doon waxtaane ñun jullit ñi tey càggante gi ñu am bàyyeeku gi ñu bàyyeeku réer gi nga xam ne moom lañu réer ba wan ginnaaw li nga xam ne mooy téere yàlla bi may laaj sama bopp di la laaj kon lan moo tax gàddaay ko lan moo tax beddi ko lan moo tax wan ko ginnaaw xanaa bëggoo baraka xanaa bëggoo faju xanaa bëggoo yërmaande xanaa bëggoo ay yiw xanaa bëggoo kaaraange xanaa bëggoo dund gu set gu leer gu tegu ci lumière te loolu doo ko amee fenn fudul ci moom téere borom bi subhaanahu wa boroom bi def na ci loo xam ne ci moom rek nga koy amee ci moom rek nga koy fekk man qaala bihi sadaqa képp ku ci wax dëggu wa man amila bihi ujira ku ci jëf nga am yool ku ci jëf ñu fay la wa man xakama bihi adala képp koo xam ne àtte woon na ci doon ku maandu wa man istamaa ilayhi intafaa képp ku ko déglu nga jariñu wa man daa ilayhi hudiya ila siraatin mustaqim képp ku ci woote woo jubal nga ci yoon bu jub bi wa man ittabaahu fala yadillu wala yashqa képp koo xamante ne topp nga ko doo sànku doo perte borom bi subhaanahu wa taala mu ne fa imma yatiyannakum minni hudan fa man ittabaa hudaaya fala yadillu wala yashqa borom bi subhaanahu wa taala mu ne mën na leen a bàyyeekoo ci man li nga xam ne moom mooy njub njub googu mooy lan mooy téere yàlla bi di alquran borom bi subhaanahu wa taala mu képp ku ko topp doo sànku waaye doo perte ibnu abbas mu ne laa fi dunya doo sànku ci àddina déedéet lan moo tax doo sànku ci àddina xàmmee nga dëgg xàmmee nga li dagan xàmmee nga li xaraam xàmmee nga li nga xam ne ku ko def am yiw naka la ñuy utee buntu yiw nan ngay tegoo ci yoonu baax naka ngay dawee safaan xàmmee nga li nga xam ne borom bi subhaanahu wa taala def ci xuppe kon yow doo sànku ci àddina te nag kenn mënu laa sànk ndax li nga jàpp mooy li dëgër te la leer ku mu leerul ku nekk kooku mën nañ koo sànk waaye yow li la leer moom mooy mbir mi loolu ku mu leer ba nga tega ci kooku kenn mënu laa sànk kenn mënu laa sànk ibnu abbas mu ne wala yashqa fil fil alaaxira doo fa perte nan ngay perte nan ngay perte yaa ngi tënku woon ci njub ak baax di bàyyee xel digalu borom bi ak tereem bàyyee xel ne di nga taxaw sa kanamu boroom dinañ la àtte loo def ci lu baax ay yiw la dañ la koy fay loo def ci safaan nag subhanallah moom itam dañ la koy fay moo lay jural ab mbugal ngay moytu yi kon mu ne képp ku ci tënku doo sànku te doo perte allahumma lakal hamd waa lu mel nii naka la ko nit di dawee ci ab jullit yàlla nañu borom bi subhaanahu wa xeetal ci boppam waaye waaw kay ba tey ci sunuy point am na ñoo xam ne tey ñi ngi ut ay yiw waaye fa ñuy jaara baaxul naam dañ koy waxte dund am na ñoo xam ne tey téere yàlla bi dañ ko jël tege ko nële kàddu borom bi subhaanahu wa taala alquran lu ko gën a tedd lu ko gën a riche lu ko gën a màgg yiw gi ngay fekk ci moom fan nga koy amee waaye tey am na ci ñoo xam ne ay kàddu mbindeef la ñu jël nee nañ dañ ciy jaamu yàlla ngir naan dafa am ñu ñu yaakaar ñoo bind yooyoog ñu di ko jàng di ko liir dama ne bu ñu fayee suñu xel bu ñu nax sunu bopp bu ñu nangu ku ñu nax yiw nga bëgg baraka nga bëgg texe nga bëgg dama ne dellul ci alquran bismillah li ngay ut yëpp foofu nga koy fekk fudul fii foo koy amee fan nga koy amee mbindeef yi ngay liiral nga jàpp ne buntu yiw la nga def ko ab jaamu yàlla yow yaa ngi bàkkaaru di liñ lay wax yëpp la ca ëpp ay nax la bul nax sa bopp danga bëgg a xam ba xam li may wax dëgg la am déet yomb na jëlal léegi téere borom bi subhanahu wa nga tegal leen fa ñoom seen téere yooyu dëgg nga bëgg jëlal alquran dangaa bëgg a baax jëlal alxuraan hmm? dangaa bëgg a jóg léegi nga baax ba romb leen léegi nga tegu ci yoonu njub liñ lay gëmloo nekkul waaye moo tax dañ lay gëmloo ni mbir yépp fii la laneen luy tedd ak di kawe fii nga koy amee ndax boo ko yëree léegi nag nga bàyyi leen boo ko yëree léegi nga bàyyi leen subhanallah azim kon góoru jullit nga walla jigéenu jullit nga bul nax sa bopp waaye bul nangu ku la nax am na ci ñoo xam ne ndeysaan bu ñu xëyee ñu ngi ci yenn téere yi te ndeysaan dañ leen a nax rek waaye bëgg a tax ñu di ko def di ci ñot ñoti nag di ko jàng jàng gu rëy xëy ci gontu ci téere yàlla bi moom ñu ne la tegal nee bul laal ndax lii wa ëpp yoon subhanallah dama ne waxi ki bind mbindéef defar mbindéef kooku dinañ ko nattalee ab mbindéef hmm? subhanallah azim am na loo xam ne xelewut su fekkente ne kay ki woo ci mbir la mu nekk dëgg la bum la tere la ca des ku lay sagguloo fii naan la fii rek kay mbir mi bul siggi jëm fee bu sa bët dal fale mbaa fii kooku am na lu muy ragal leer na ko ne am na foo xam ne boo fa ñamee rek dootoo fa jóge sa bët bu ca dalee ñu ñàkk la ndax dangay xam ne ca lañ lay woo ab naxe la kon ñu yeewuwaat bu baax borom bi subhanahu wa bim ñu bindee daf ñoo may ay xel pour ñuy xalaat yàlla ñu borom bi subhaanahu xeetal ci boppam ba tey ñi ngi woon ci naka la ñuy def ba gàddaay bi ñu gàddaay tiire yàlla bi mu am saafara ñu waxoon ne ñu bàyyi waaj bi ñu may sunu bopp temps xeexal ak yi waaye góorgóorlu nag jéem a def ay effort mooy bëgg bokk na ci la ñuy dimbali ñu dindi tayal ci sunu biir nañu dindi tayal nañu dindi tayal waaye itam ñu góorgóorlu yenn mbiru àddina yi ñu bañ di ci layal sunu bopp dama war a jàngi ban heure nga war a jàngi ci oustaz ba 5 nga bëgg a dem tuur ba walla natt ba 5 heures ngay dugg une heure de temps ngay def ak oustaz bi nga bëgg faa nekk ba 6 heures daan ne oustaz bi ah man de oustaz moom damaa xaw a sonn damaa amoon nangam ak nangam ñu bàyyi mu jàll subaa nga ne ngénte ginnaaw suba maanaam nga topp yooyu jiital ko ba nga xam ne dangay dem ba seytaane mën la rek daal di lay nës bugal la ci kàmb ga mu bëggoon muy kàmb tayal. ak nga jàpp ne ah man daal ba may dem ci oustaz ba tey daara xaw ma ko ba tey maa ngi ci fer igi ah yow foofu ngay mën a toll di dangaa jàngi boo ñëwee ci kër gi teg nga kay bi fële la la ñor yaa nga ca yaa nga ca télé ba yaa ngi ci mbir yoo xamante ni du la jariñ mais su fekkonte ne daf la ñor dëgg ci iteel la ba nga pare pour jox ko temps bu doy doo tayal laneen lu dul moom luy sànq sa waxtu rek danga ko naan tegg dina jar sax nga dem tuur ba wala natt ba teel a joxe la ngay joxe ba nga xam ne dara du la ca fekk nga dem ci sa wàllu jàng bu la ñoree wala tey de tàrde naa subaa mu jaral la nga utal ko beneen heure boo ñëwee ci kër gi nag nekk ci wàllu jàng bi lu tax bëggoo dara raw la waaye yow kuñ la booleel kalaas rek ci say maas da ngay gis mu dem bàyyi la su la ñoree tuuti su leen ñoree tuuti yow nag nga toll fa nga tolloon mais bu yàggee nga tayal mbir moo xam ne dugg nga ci kay amoo ci benn avancement moonte day maa ngi yaakaar ne fi mu toll nii ku diineem ñor rek ci koñ bi mu am benn bëgg bëgg tuuti ci digganteem ak boroomam te yàlla bàyyiwu ko mu ne jéggi ci koñ bi walla meer ci koñ bi yépp daan ne oustaz bi ku fi ñëwati su jëlee darsa ba pare jox ko ab 5000 francs su fekkente ne mokkal na hmm. allahumma lakal hamdu waay cey yàlla nañu yàlla suturaal bu ko defee incha allah egsi nañ fi ñuy yëkkatee suñu jotaay di leen ñaanal yàlla jàmm ak tawfiq di leen baalu àq di leen baal di ñaan borom bi subhanahu wa taala mu nangul ñu nangul leen jërë ngeen jëf asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu fa nurullahi jalla ulahu yuwini wa حب الله يسري في شراييني وأعصاه فيغفر لي ويرزقني ويعطيني سألت الله سألت الله